jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñu ngi gërëm suñu wasila Seydi Aboubacar si di jàppaarloog jëmm ji nga xam ni ñu ngi koy tuddee Cheikh Baye Thiam Yacine Cheikh Baye Thiam di bokk ki nga xam ne moom mooy waa kër Mame Baye Niass Cheikh bokk fi nga xam ne moom mooy Kaolack euh, Mirina Baye euh, dëkk cosaan cosaan dëkk mu ngi nekk dëkk bi naan Thiamène Diogo wax dëgg yàlla ku dégg dëkk boobu xam ni yàlla dogal na fi ay boroomi xam-xam rek ñoo fay yeewoo macha allah réew mi nag léegi bokk na ci li nga xam ne moom mooy euh, dañuy fas yéene waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy ci programme bi ci wàllu xam-xam mais bi ci jiitu mooy actualité je pense que fan yi seetaan ngeen ko ci télévision bu mag bi ñu naan tey TV maa ngi fa doon waxtaanee li jëm ci li nga xam ni moom mooy wàllu accident yi ñu doon ko ci laaj ci émission guddi gi eh, bi mu ko waxee yàlla dogal na yàlla dogal it loo xam ni maara day taal yi kenn ñaanu ko woon ci lañ xëy à part sax bi nga xam ne moom cheikh bi waxoon na ko. am na ci beneen boo xam ne amaat na demu muy cinq morts yi nga xam ne ci yoonu mbuur bi la donc euh, te loolee joxoon na ci ay tegtal dina ci ñëw euh, beneen programme mooy question actualité tey gis ngeen ko Ousmane Sonko ma nga fi nga xam ne moom mooy Touba Mbacké war a jullee biir Touba juge fa dem fi nga xam ne moom mooy Mbacké Mbacké euh, fa la meeting boo doon amee mais préfet dafa accordé ne dafa carrément rejeté ne du am lu waral lu tax am naak amul ak xeex bi lu ko waral sëñ bi dana ci ñëw li ci des mooy waxtaan ci wàllu xam spécial li nga xam ni moom mooy njariñu nopp bi nga xam ni leer nañu seede nañu ne yàlla may na ko ci lool xam-xam macha allah loo xam ni eh, da koy def nga gis ko beneen bi mooy dégg ngeen mu doon joxe ay tegtal mais ci façon jaaro yi sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan ñu soog a ñëw ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi ak xam-xam bi ak li nga xam ne mooy faj bi nga xam ne yàlla def na ko ci yaw laa hawla wala quwwata illa billah al aliyyul azim Euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan Seydi Mouhamed ñu ngi lay wax waaleykum salaam wa rahmatullah di wax ñi ñuy seetaan te dañuy jàkkaarloo ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu muy juróomi baat yi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moom moo ñu ko digal ci alquranul karim ne moom mooy tahiyatu ahlul janna ñu ngi fekk kenn ku ne fam toog di ko nuyu te di ko ñaanal yàlla jàmm bismillah aywa euh, jërëjëf mbokk yi yow miy seetaan bul yàkkamti war nañu ñëw ci question actualité euh, mais numéro yi mooy affiché ci bas d'écran bi du fekkee ni woo nga ko jotuloo ko nga bàyyi message message WhatsApp su paree dina li lire ndax tout temps day faral di nekk ci li nga xam ne moom mooy kurus gi alors Cheikh Baye dañuy ñëw ci lu njëkk moom mooy ci wàllu xam-xam bi ndax tout le temps dañ lay faral di kii ci télévision ngay waxtaanee ci wàllu xam-xam mais xam-xam bi dafa bëri façon li waral mu bëri ak ñi ko war a def ñu ko war ta def est-ce que nit dafa war a jàng ba dem jàngiwaat xam-xam Seydi Mohamed xam du jeex ndax Yonent bi sallallahu alayhi moom moo ñu digal ne nañ sàkku xam-xam ci suñu laltaay ba fi ñuy tëralee ci bàmmeel kon lu dul jeex nag moom nit warut arrêté di ko xut lool sax ñun moo tax tam comme ni nga ko waxee rek lépp luñ ci am rek dañ naan wala dañuy laaj yàlla subhaanahu wa taala hal min mazid wala daynal mazid ndaxte yàlla am na ndollal te ñu koy laaj te mu ngi ñuy dolli kon xam-xam du yem te du te arrêté te du jeex moo tax fu ñu tolli tamit ak jaami yàlla yi te ci laay profité yax nga ko ci commencement bi képp koo xam ne yaa ngi ñuy wow wala yaa ngi ñuy bëgg a jokk ñu war la seetal wala ñu war la liggéeyal wala ñu war la defaral dara nga ñuy woo jotoo ñu bàyyil ñu message rek Mouhamed lum nit ñi bëri bëri bëri bëri bëri bëri mm-hmm. kenn par kenn danaa la rappeler mm-hmm. lu mu yàgg-yàgg ñi bañ ci si mer parce que ñu bëri ndeysaan seen soxla yi daf leen yitteel mm-hmm. ba nga xam ne suñ la woowee jotuñ la benn yoon sax dañu am lu leen métti lool ndax jaami yàlla yi seen cofeel dafa dafa yëkkatiku si ñun ba daf ñu jaaxal waaye nag jarut ñu yàkkamti man appel absence dama koy réviser te képp ku ma mos a xoo danaa la xoo macha allah muy message kon xam-xam du jeex moo tax fu ñu toll ñu ngi koy gëstu bismillah tey nag bëgg naa ñu waxtaanee xam-xam xam-xam mais ci xam-xam ci la ñuy njëkkee maanaam ci psychologue maanaam tey bi ñu xoolee sa jaar-jaar dem nga sax bay nettali sa waajur bi muy génn àdduna fekk na la yaa ngi génn pour ñëw ndakaaru eh, jaar institut islamique xam-xam bi euh, est-ce que Cheikh Baye dafa jékki saa rek <coughs> ñëw ne kaay leen ma ñaanal leen wala dama ko jàngi déedéet euh, alhamdulilah Mohamed ñun dañoo dañoo jaar fi góor ñi war a jaar ndaxte suñu waajur bi nga xamante radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla yërëm te yokku leeram daf ñuy jàngaloo te dama damay fi ma jàngee dafa lëndamut mhm. ndax te man damaa jaar ci ay barab te fu ma jaar fu nekk mhm. lillahi alhamdu subhanahu wa taala def naa fa marqué naa fa suma empreinte mhm. loolu nag yàllaa ñu ko defal ndax mënoon nañu ko ñàkk defal man fi ma njëkk a jàngee école Taïba Mbayeen la ku ko déggut ci xam-xam xam nga fa bokkul ak Taïba Niassène. déedéet bokkut ak Taïba Niassène. ok dëkk la bu ne ci wetu Kër ma Ndongo diggante Kër ma Jëbel ak fi nga xamante ni euh, moom mooy euh, Ndrame Escale. Ndrame Escale wala nga jël diggante sëñ ci yàgg fi nga xam ne fa la sama yaay dëkk man ak fi nga xamante moom mooy Kër ma Ndongo. Mhm. fa laa daan bàyyi ko 4 kilomètres di jàngi. Mhm. am naa fa ñaari ma bàyyi ko fa dem fu ñuy wax Kër Laayeen Dobalin. bi ma fa bàyyeekoo jàngee naa daaru kër Momar Xoroja mooy dëkk bi nga xam ne fa la njàmbe daaru dëkk maa ngi profité di nuyu ay mbokkam bu baax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sopp mhm. ba ma fa bàyyeekoo dem Medina Baye Niass Kaolack waaye parcours bi li ma a tuddal ci dëkk yoo xam ne day mel ni lu bëri mhm. loolu yëpp dépassé wul lu mat juróom-ñaari at ndax li tax mm-hmm. ci laa profito li may xam ci wàllu lu xalaare bee ma xam ko ci mm-hmm. ci laa profito li may xam ci wàllu euh, lakk français muy mm-hmm. baat français ma xam ko ci ndax durant ma la wax nii jot naa ci def français ba am ci classe yu ñu ci yegg durant ma la wax nii ci laa fexe ba mën a liir ndax man sama cycle primaire ci lu xalaare bee muy ci école arabe ñetti at laa ko def def CM2 bi ma ko defee réussir ko dem école nas fa laa continuer sama njàng mm-hmm. ku nekk xam na maat alaaji Abdoulaye yëfi caaxaan dugalul fa nit musuma mm-hmm. jàng yàlla sut nattoo ma mm-hmm. ma bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy génn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jiitu ci classe bi musuma ne ci classe buñ ma xamut liñ may xamee mooy jàng ak góorgóorlu ma nekk kër sëriñ Njaar Ousmane Ndiaye mu yar ma jàngal ma kon damay wax ne bu dee ci xam-xam bu ñuy fàggu nii ci àdduna ci wàllu diplôme naa certificat am bu dee ci wàllu téere yu xonq yi mm-hmm. dalee naa ci lax dër yu ba nga xamante ni téere bi ñu gën a naw ci téere yi ma jàng ko sëñ Daaru Ousmane Ndiaye ci Medina la mm-hmm. risaala laa fa jeexalee mm-hmm. bi may dalal maqaama mu ñëw Dakar mottalee ko fii nii bu dee ci wàllu li nga xamante ni mooy ci wàllu loxo moom ku jaar foofu da ngay xam ne jaar na ci wàllu woo noonu bu dee ci wàllu loxal français mosuñ ko bàyyi ba niñ ñëwee fexe dem université. Mhm. jotuñuy intégré parce que li nga xamante moom mooy fac arabe. Mhm. wala département arabe. waaye problème bi ñu andi loolu mooy li la wax. Mhm. man ba ñëwee ñun dañoo inscrire ci institut islamique bi fii nii. di def li ñuy tuddee bagu Soudan bi nga xam ne moom la fi état daan organiser. ndax booba état reconnaître gud bagu arabe bi. ñu def ko réussir ko alhamdulilah. jour bi nga xam ne nag mooy suñ dernier jour examen. la suñ waajur onze heures et demie ma taal ko jot message bu sama nijaay mu ne ma bul taal sa téléphone. Mm-hmm. ma ne waaw quoi bu ma taal sama téléphone comme man naka jekk xel mi moom dafa ma di yëngatu. Mm-hmm. te ñaare ba lu may bett itam bëriwut. bëriwul ndaxte donte musiba la. Mm-hmm. doo buur wax ko. bu dalee sa kaw waaye da ngay muñ. moo tax yëf yi dérange wut ma lool. waxuma xamoon naa ne bàyyi dana dee waaye bu dee du ma bett. dégg nga wax bi. léegi nag biñ ma ko annoncé ma ne alhamdulilah maa ngi bokk classe koo xam ne ñoo bokkoon di jàng ñu toog bokku ndékki ba suur. man ko sama papa dafa gaañu mu may ree parce que moom gëmul mënul gëm ne man sama papa gaañu na may taawam. Mhm. toog di ndékki war a duggaat di def examen. Mhm. ba niñ wàccee 17 heures ñu ngi wàcc 15 heures presque jàpp 16 heures te damay wax ne bi ma duggaatee matière bi ma def ko annoncé ci nga duggaat yow continuer sa examen. biñ ma ko annoncé si laa duggaat continuer sama examen. parce que teel naa xam ne kullu nafsin zaa'iqatul mawti kullu mhm. man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Oh. bàyyi yar na ma ba jàngal na ma ne dund dafa am dee dafa am. Mm-hmm. ndax xalaqal mawta wal xayaata loolu la ñuy alquran wax mm-hmm. kon du ma bett te daa iman yaati baxtatan dee moom buy ñëw bett rek lay ñëwee oh. kon bett gi muy moo tax du ma bett su dee amee rek day am na mm-hmm. ma continuer def mottali sama examen kon damay wax ne su doon ci wàllu njàngam bind kayit ñuul alhamdulilahi rabbil alamin mën nañ ci yor suñ bopp ñun waaye nag ci ndigalal baay moom génn àdduna. ñun ci lañ duggee ci métier mi. d' accord mais euh, ci résumé euh, maanaam suñu xoolee li nga wax nii. maanaam li ci wund mooy avant ñaan gi. mooy nit ki il faut mu dem jàngi xam-xam. da ngay jàng xam-xam da ngay tarbiya ñaareel ba da ngay nangoo téye kurus di ko liggéey. ndax njàngam kayit meeg big laa la wax. dama ci bàyyi ko man 2002 laa tarbiya. li hmm. nga wax bi. 2006 2007 maam ijaaza itlaax jëlee ko ci sama waajur te nee naa la bi maam ijaaza boobu noonu ci sama waajur bi ma ko jëlee. Hmm. Barham Diop moo ko jox ijaaza mu jox ma ko. Barham Diop men seetut ma parce que doomam laa déedéet parce que xam nañ lan mooy ijaasis tarixa tijaan yaa ngi dégg ah, loolu alhamdulilah rabbil alamin sama sëriñ yar ma yaa ngi dégg ma génnee ci loolu bi ma demee ci kër sëñ Daaw sunu yaay xalifaam di Cheikh Ibrahima ma ba ci sëtu Cheikhu Tidiane xalifa Cheikhu Tidiane bu njëkk mu Ali Harazim mhm. xalifaam ñëw gàmmu Medina Baye ma dem ba ci moom sukk ci moom ziyaare ko mu doyloo sama xam-xam doyloo sama jikko maa ngi koy door a wax tey mu yëkkate ijaasa it laax jox ma. d'accord mais bu ñu ne ñaan lan mooy xam-xam maanaam xam-xam mooy lan comme tey jii tey xam ñaan. Uh-huh. foog nga jàng xam-xam ko njëkk. Uh-huh. bu dee ñun bi ñuy def muy nuuraanee muy alxuraanul karim bi. alxuraanul karim. ginnaaw boo jàngee ba pare nag da ngay tarbiya mooy tur yàlla kenn mënul cee am ndam te tarbiya woo ko tarbiya tur yàlla nag man taxan ak nelaw guddi. mën tànd ak fu la neex fanaan mën tànd ak lu la neex def da ngay bàyyi mooy yàlla da nga bàyyi yu neex yi rey sa bakkan bi ci loolu nag ci lañ ne ñun hmm. comme ndigal lañ ci am te ndigal dafa fort ñi ciy avancé di si avancé ba yàlla di ñu si may li ñu si may ñu xeeb ko lool parce que Mouhamed lu ñu am ci ndam rek xeeb nañ ko hmm. ndax jaam yàlla yi dañoo sonn te nit ku yëkkati téléphone am la hmm. te man Mouhamed sama morom daanaka du ma ñaan loo man ñi may ñaan loo ñëpp ñoo mag sama waajur oh. kon loolu cër la boo xamante ni ñun xamuñ lu tax ki bàyyi yitteem nag magum jëmm mhm. juróom fukki at jëm kaw bàyyi li muy def yëpp ne yow xale bu ndaw bi yow laa dënk sama bopp kooku soo nelawee dangaa dof mhm. soo caaxaanee dangaa dof warut la lii mun ñun moo ñu tàcc ci ñaan yàlla ñaan yàlla mënta ñàkk ànd ak njub mhm. mënta ñàkk ànd ak jaamu yàlla mënta ñàkk ànd ak ñàkk jàng dégg nga wax bi li ma foog nga il faut nga jàng yooyu yëpp nag su dajee dafa am beneen xam-xam bu yàlla di joxe muy benn kastu mooy mooy ma boo xam ne yàlla subhaanahu wa moo koy joxeel boppam boo jàngul sax yàlla mën na la koy jox waaye nag ku ko boole faqat jamaa baynal maxaamay ni ku boole ñaari maxaam man jamaa bayn ah, ah, jamaal wal jalaal wala man jamaa maxaamay ni faqad huwal kamal d'accord léegi bi loolu jiitoo ci nga jàng xam-xam bi mhm. jàng ba pare dem jàngiwaat xam-xam soog a am parce que tey ne dañ lay faral di dégg ngay waxtaan ci yenn tele yi nga naan euh, ñaanal nit risque la bu rëy kon ki koy def. il faut nga doon boo xam ne mooy jaar fi nga xam ne fa la Cheikh Baye jaar. foog nga am jaar waay c'est-à-dire. boole parce que dëkk yi ngay wax nii ay boromi xam-xam ñoo fa nekk. mais man ñi ma jàngal ñu ngi dund alhamdulilah cest nit ki cest à li ngay wax ki lay déglu da nga ciy ruus sax wax ci naka su dul noonu parce que ñu ma gën a xam fuuf ñoo fi ne ndax ñi ma jàngal ngay dund. adi yi macha allah soreegut. yitte jee kawe rek. dégg nga wax bi. Mhm. man fi ma jaar li may wax dama koy waxantu nee la bu pënd bi wuree wax naa ko kerek seen télé bi. Mhm. bu pënd bi wuree danañ xam ñu war mbaam ak ñen ñoo war fas. du ma wax fi ma jaar ku fa jaar takk bande waaye ku fa jaar waxuma la takk ban waaye ngiroo mën na la cee fekk. d' accord euh, danañ ñëw ci kanam message bi nga xam ne ah. di nga ko lancé par rapport ak jeunes yi ci dugg léegi. Mhm. ak par rapport ak euh, fi nga wax yow ci sa jaar-jaar ci wàllum ñaan. Mhm. donc dina am message bu am solo boo xam ne di ko jàllale après par rapport ak kiy jël risque di ko def. Mhm. ak conséquences yu ci nekk. ak li nga xam ni. mën na ko jural ëllëg musiba. waaw ndaxte alquraanul karim duñ ko foowee. yaakaaru doomu aadama bi duñ ko foowee. ndax ñaan yàlla dafa am risque même bu la yàlla mayee am na yu bëri yu ci ne ndax ki ngay ñaanal xamoo kan la am na koo xam ne dalay testé am koo xam ne yaakaaram dépassé na sa yaakaar am koo xam ne boppam ëpp na sa bopp. am koo xam ne alalam kenn du ko am koo xam ne alalam boo ko doo boo ci naxee torox moo tax lan nga ci gis ñu bëri ñu ngi damm. la ilaha illallah. waxuma ne dee ci ndaw du am waaye am na yenn façon yoo xam ne da ngay xam ne damm damm la nit ñi nag xàmmeewuñ rëy ak néwi saa suur ak néwi du benn bëri na alal yooyu gis yenn gune yi néwi la mais du suur. mooy alal joo xam ne am nga ko téye nga ko waaye oto bu rafet bi nga am sax ñi mewu koy war yow kenn parce que yaa ngi ragal balaa ngay ñëw ñu nangu ko parce que nax nga nit lekk ko. mu mm-hmm. jëndee ko oto. kër gu rafet gi nga dëkk bëggoo kenn xam ko foo luyee tey bu subaa nga dem. luyee jël xaalis nit du taxaw. mu ne may danaan may ñaareel ba yow itam léegi nga ne may parce que doo ñime mu gis la bu la woowee téléphone doo ko jël koy bloqué doo ko rappelé doo bëgg mu xam fi nga dëkk gune yi fi ñaan ñu bëri kenn bëggul ñu xam fa nga dëkk. te nee nga loolu coono saalum rek saalum saalum rek te Saalum dafa yaatu Siin ak Saalum xamoon nañ ko Damel Kajoor yaa ngi dégg. waalo mais da ngay gis ne kenn nangoo tut a sa boppu ndax jubadi gi moo ëpp te kenn dëkkul ci dakaar kenn dëkkul ci Dakar ñun ñëpp dañoo ñun ñëpp horaire bee ñu fi andi. wax nga ko goroog ci télé bi. yaa ngi dégg. Mm-hmm. comme nag yow li ngay def ñimewoo say mbokk xam ko. Mm-hmm. ñimewoo ñu gis ko ñimewoo wax fi nga dëkk. Mm-hmm. fa nga dëkk sax da leen mujj xeeb wala doo ko ñimee présenté parce que juboo d' accord léegi xam-xam bi mooy maanaam tey. pour soxla nit ki Cheikh baay mën koo xam-xam fan la mën a aw. pour xam saraxam. wala pour xam biddéewam. parce que dañ la doon wax ak feral gi waxtaanee ci affaire ñaan wàllu li nga xam ne moom mooy seet. parce que nit ki est ce nga koo xam ni tey mën nga mënoo ko faj tànk xoolaloo ay mbiram. lu tax ñuy faral wax man moom gëmuma loolu man ku mënta doon ci kaw suuf loo bëgguma defal dama lay seetal ndax man gën naa ne mënuma faj sa xaajo te seetalu ma la waxuma keneen xamu ko de waaye man Cheikh Baye Thiam Yacine du ma faj sa xaajo te seetalu ma la ndax li tax mhm. mooy dama dul def aveuglement nii mhm. man duma ma làmbatu majhuliya déedéet làmbatu mooy len boo ñëwee yow itam waxuma sa soxna gëwuma la koo mënta doon nettalil ba géex danaa la déglu waaye gëwuma la parce que li tax mooy man sama seet gi laay gëm ndax li tax mooy nit day ñëw wax la problème ba jooy te fekk waxu dëgg bu lay la may tuuti kasu nga toj dëkk bi ndax mën na la def looloo xam ne danga lor doomu jàmm wala nga tas kër oh. kon moo tax ne la képp kuy ñaan yàlla te bëgg cee màndu soo mënta seet soo xebut ba d'accord moo tax du ma defal liggéeyal kenn te seetalu gis nga saafara bi gën a tudd bala ma la ko jox sax mm-hmm. danaa xool ba xool ndax li ma lay jox dana la jëriñ wala du la jëriñ bu fekkee du la jëriñ ma ba mm-hmm. ndax li ma ciy sóoraale xam nga mooy lan. Mhm. mooy bëgg naa képp ku may faj rek. Mhm. man danaa am yaqin su ma tëddee nelaw ne man li ma def sama xel mi dal na ci waxuma dana xam de. Mhm. waaye man sama xel dañ ci dal. sama damaa bëgg liberté li nga may gis nii. d'accord euh, nee nga sax dëngu coono la da ngay faral nga dégg di ko wax dafa métti ci ginnaaw euh, seet bi. kon nag joxe nga ci ay tegtal yoo xam ne bëgg na nga ñëwaat ci. ci yan façon la parce que tey nee nga bëri na ñoo xam ne ñu ngi toog tiim petaaw te alors que loolee am na risque yu ci nekk. rescoussé ne te dafa araam man bokkuma ci ñu ko gëm man ne wax naa ko waxati na man awma problème di ko wax di ko waxaat. Mhm. man góoma seete petaaw du ma ko def manuma ko waxuma ne du xam-xam mais dafa araam parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu ñu tënk ñun charia la ñu andil charia lim yaayee yëpp naqariwut njaaloo naqariwut te daf ñu ko xaayee. Mhm. yaa ngi dégg yàpp mbaam naqariwut te daf ñu ko xaayee fen dafa neex te daf ñu ko xaayee petaaw itam mën na seet mën na gis waaye dafa araam. dafa xaram duma ko laal képp ku koy defit doyoo ma man te yonent bi sallallahu moom moo wax ne képp ku dem ci pettaawkat seetlu ji fa yaa ngi dégg ñeent fukki guddi loo jaamu yàlla du nangu. digaloo ko kenn mu koy def. déedéet képp ku koy def yaa ngi ci amul lay. Mm-hmm. amul lay. Mm-hmm. dem ci màkka yaa xam. Mm-hmm. dem ci foo mënta dem yaa xam amul lay parce que li tax amul lay mooy. baaxut te dafa xaraam. lu xaraam nag amul lay. Sénégal nag moo mel noo xam ne foog nañ ne loo dundalee say waajur dagan na. foog nañ ne loo demee màkka dagan na mhm. foog nañ ne loo sol yére bu rafet wala nga am ci kër dagan na ba nit ñi seetatuñu dagan dañ naan naa xam kër ak oto dem màkk d' accord léegi pour euh, Cheikh Baye mën a dimbali nit ki euh, mm. balaa ñu ñëw ci spécial nopp geek sarax bi ak sarax lan lay def ci nit mm-hmm. ak jaaro yi nga xam ne yaa ngi koy liggéey ñu tëj ci émission bi ci question mm-hmm. actualité mm-hmm. léegi ci seet bi façon bi bi nga xam ne ki koy déglu jàpp na ne nekk na loo xam ne moo jaadu man moom ni may seetee waaw man dama koy wax ku nekk soo ma wooyee da nga may jox sa turu yaay sa tur sa tur sa ñaata at man ni may seete itam tomb ma. at bi lu mu ci jublu at bi ñaata at. bi li tax. Oh. mooy doomu aadama dafa am lu ko tënk. secret la xam nga nit turam baati mooy nam hmm. ndax li tax loolu mooy nit ñi luñ bëri bëri amul kenn ku fi andiwaale si tur doo ko yóbbaale waaye fu ñu waxee sa tur nga gestu dégg nga wax hmm. nit ñi nag luñ bëri bëri bëri bëri bëri bëri ci kaw suuf yaa ngi dégg amul kenn kenn ci nekk ku ci bokk ak sa morom li nga xamante ni moom mooy sa génnuwaay. moo tax su ma xamee sa tur xam sa turu yaay xam ñaata at nga am mënoo koy ñuróolee kenn kii mën a tudd faatu kee tudd faatu waaye faatu doomi doomi doomi ummu. waaw parce que léegi nga gis wax day tudd faatu kii tudd faatu. bokkuñu affaire waaye duñ bokk turu yaay. Ah. suñ bokkee turu yaay itam duñ bokk bis buñ juddu yenn saa yi nag yooyu dajee tur daje seen turu yaay daje ñu bokk benn bis buñ juddu waaye foofu nag xam-xam fa lay xóotee parce que doo ko laaj ni yow yaa koy xam est-ce nga ne mën naa liggéeyal nit wala ma seet ne tudd ma xam noo tudd laa ilaaha ci tur yi parce que na tur yi fi ñu déparé sa borom xam-xam yi xam nañ loolu sooy koo gisul wala koo xamut ci tur woowu ngay jaar te loolu faw nga mën a seet forcé jàpp ko da ngay mën a seet te itam da ngay xam li nga xam ne mooy euh, xam ci wàllu lasraar li ñu tuddee moom mooy jamoo sirru danañ ci ñëw secret euh, ba a sàq mi lañ ci jeex na euh, kenn du moom. Euh, ci asraal bi ci laay ñëw. parce que koroog dégg nañ la it nga joxe ay secret yoo xam ne maanaam xuddan. xel mu nu jum. ak ci yeneen façon yoo xam ne yaa ngi koy wax lan mooy seen différence par rapport ak li ngay nga euh, sa soo déggee ñu naan almu nu jum mooy mmh. xam-xamu biddéew. Mmh. mooy astronomie loolu ñi jàng faak sax xam nañ ko. dégg nga wax bi bi yàlla da koo tënk ci loolu ci biddéew suuf si biddéew la ci biddéew yi kaw kaw la mais bi ñuy wax almu nu jum si asraar mooy ñi nga xam ne ci raml la ñuy seet nujum mooy jamoo najmu ci arab mooy plurielu baatu najmu biddéew mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. mooy ay biddéew mooy nujum parce que baat yi araab yi dafay réeral ñu bëri ñu fokk lu rëy te rëyut mm-hmm. ilmu muy xam-xamu ram la muy tomb nii am na am na ñu ko man lool waaye dama ne man bëri na sëriñ sum faagaagal parce que soo ko soo ko xamul di ko def léegi nga dee wala nga feebar wala nga dugg kaso parce que dalay tëj bunt yi dafay am heure koos koo tombal rek am na lum la wan yow koo tombal soo ko soo xamee ci moom dara am na lum la xamal loo war a def soo ko du def foo jëm sooy tomb ta xamoo ko yaa ngi ci erreur exemple bi ma la ciy jox. Hmm. mooy mu ngi mel ni gune gi nga denk fetel am na sens tiré jam keneen waaye am na sens tiré ñàkk na sens tiré jam boppam. fetel arme la waaye dañuy jàng ni ñuy tiré. elmu nu jom benn bu ci loolu nekk man du may seetee boobu am na lu ma ci xam xaw ma lépp. d'accord ok nga wax léegi ci euh, biddewu nit ki wala ci euh, programme nit ki. ci nga doomu aadama dafa am lu ñuy tuddee li nga xamante mooy turam. Mhm. na nekk dafa am sirrum. Mhm. dafa am li nga xam mooy tabi'am. dafa am loo xam ne moom mooy najmum. Mhm. dafa am loo xam ne mooy ruuxaaniyatum. dafa am loo xamante ni moom mooy xuddaamam. dafa am leneen loo xamante ni loolu mooy ismul azamam. ni yàlla subhaanahu wa taala amul amee ismul azam yàlla am na kursu yi am na aras am na nangam am na àdduna am na tur am na nangam waaye am na ismullahil azam ismullahil azam dégg nga wax bi doomu aadama bu ne am nga sa ismul azam boo xam ne ku fa laal nga yooxu ndax Mohamed fii la ñuy toog ci senegal ma boolente ay chiffre juróomi chiffre mu vivre téléphone ba ca France waxuma sone ko ne da koy vivre yëngal téléphone bi waa ñi defar loolu ci zahir nga gëm ne yow mënoo toog fii téye pérécourse vivre ka nga xam ne moo ne ca Amérique soo ko xamul rek amoo xam woote fii composé mu sonné ca ka nekk ca état. day vivre bu so xam nga sonné sax da nga koy dégg waaye vivre mooy yëngatu mu gajamu ànd ak sonnerie te yow ay numéro rek nga def comme ni sa téléphone bi def noonu est que dégg nga wax bi te ay numéro rek lañ composé noonu lañ mën a jëlee ñun turu doomu aadama jaxase ko yi ñu koy jaxasee yi bokk ci moom ba suñ ko calculer ba génnee numéro téléphone am koy composé mu jot ko d'accord d'accord amul sikk soxlaam it noonu lañ koy liggéeyee ok léegi ci kaw loolu ci tënk euh, lan la ñuy tuddee sarax xam nga sarax baat bi nii dañ koy tudd nii rek. am na sarax baatu arab la waxoon naa leen que ne wolof baat yu bëri arab la. sarax mooy asadaxatu. asadaxatu asadaxatu moom mooy sarax moom la wolof ñu naan sarax sadax la ñu naan sarax. yaa ngi dégg. Hmm. sarax dafa wér dafa am ñaar nag. ñaari façon waaw xëy rek am envie saraxe mooy dimbali nit. alxuraan digle na ko. lexal ku xiif may ku nangam ku ñàkk loolu amut problème amut tàmm. Hmm. lu la neex defal. waaye dafa am sarax boo xam ne pour faj xaajalu alquran tudd na ko ne na ngeen génnee sarax ngeen laabal lee ko seeni mbir te qad aflaha man zakkaaha yalla texeel na ki nga xam ne laabal na mbiram rendi na mbiram a zakiyatu mooy rendi ci wolof la ilaha loolu moo tax sarax yu bari yuy doxal mbir yi ca ña bokk ca groupe biddiw boobu noonu mooy ñi seen tabia nekk tabiya boobu du ko leeral rendi dafay doxal seen mbir dafay doxal seen mbir am ñoo xam ne buñ rende mu tëj seen mbir kon am na sax yu tëj mbiru doomu aadama yàq doomu aadama est ce que xam man nga am soxla léegi xëy saraxe mu yàqu laa ilaha illallah waaye mën nga am soxla léegi xëy saraxe waxuma soxla feebar sax xëy saraxe nit am problème mu këyit xamoo système am nga di ko génnaloo yenn façon sarax yi muy gën di dëgër du gën a dëgër dafaay moom dafa lay jaaree tëju ba faw kak laa ilaha illallah jafewut a xam di exemple la rek yow sa code PIN bi nekk ci sa puce bi soo tentee ñaari yoon sax ñu bloqué ko day bloqué day dem tentation moo baaxul man nga am sax nag tenté code bi ubbeeku gis nga yëf yi soriwut. Mm. xam-xama yaatu ndem téléphone bi nga amee ngay composé code bi dugal ko ñaari yoon rek mu bloqué waa rawatina doomu aadama bi nag soo dugalee te xamoo rek mu chiffre yi mu bloqué da nga koy xam te jël sa temps ci moom am na ñoo xam ne xam nañ waaye duñ liggéey am ñoo xam ne xamuñ dara te bëgg a liggéey am ñoo xam ne xamuñ liggéeyuñ dégg nga wax bi. Mm. xam nga xam nga am njëriñ. Mm. mooy da ngay xam liggéey te ànd ceeg dal ànd ceeg tey te bu la kenn moom. d'accord léegi pour nga xam code bi. ba génn loo ko sarax boo xam ni Cheikh Baye jàpp na ne kii de su ko defee yàlla faj aajoom faj aajoom parce que am na koo xam ne tam bu saraxee aajoom du faju de hmm. foog ndax sarax bii faj aajo dafay ànd turu yàlla man amut kenn ku may génneloo sarax te du la wér daal man bi ma jàng man képp ku ma defal sangat wala ma génneloo la sarax damay téye sama kurus liggéeyal la xëy na nag différence bi fa la nekk parce que métti na nag dafa métti trop parce que liggéey bi yombut du fo. parce que dafa métti. mënoo fanaane xoole di sonn ba njaboot doo dem xew doo seeti kenn doo lekk suur doo naan mandi di feebar di toog toog bu métti ba pare bëgg na xam-xam bi nga xam ne di ko jox nit ñi ñu koy fay. mais waxoo koo xam ne dafay lekk xaalis jàmbur te defee di nelaw naan maa ngi lay fanaanoo. loolu yafi caaxaan lan mooy fanaanoo looy fanaanoo sa jabar ngay fanaanoo nga naan da fanaanoo yalla dafa maa suturaal nattoo ma ba gis nga suñ tasee woon ni ñu xamante ni nga ne ma allo sëñ bi mbaa yaa ngi may ñaanal dama naan la déedéet su ma la ñaanul rek ñaanalu ma la parce que kaf yooyu ñu ngi koy fooye tafen la te fen baaxul yàlla du fen ku bëgg boo ñaanee mu nangu waroo fen la ilaha illallah baax li ma la yooyu duñ koy kafee kon daal sarax bi mooy code bi il faut nga téye courtier pour xam da am sarax te man ñaareel ba mooy amul mbindeef ci kaw suuf mu may jox sangat te doo saraxe ku mënta saraxe jarul ngay ñëw ci man parce que problème bi sarax mooy setal yëfi moo koy setal produit lu mu rafet rafet rafet danañ ko utal lu ko àmbale micro bi sax dañ ko defal luñ ko solal ngir bañ taf yu dugg ci bi bañ mu mooy bone bi. dëgg la mënta ñàkk doomu aadama loo taaru taaru boo solatoon yére boo génnee nit ñi daw ku la gën a rafet yére gën lay am cër. mais sarax yi day bëri façon quoi quand même. dafa bëri façon nag. ok doomu sarax amul lim nag. Mm-hmm. doomu aadama lam am ca dooleem rek yaa ngi dégg. Mm-hmm. ak lan ko ma bëgg a dimbalee ci dooleem waaye nag am na façon. Mhm. kii dafa war di saraxe lii. kii dafa war di saraxe lii kii dafa war saraxe lii ñeenti catégorie la li tax nag ma koy codé xam naa li may wax parce que nit ñi léegi. Mhm. naxekat yi dañuy déglu sa son. toppaat ci toppaat di ko wax ñi foog ne lu ñu xam la ñoom te xamuñ ko. li ngay wax nii foog pour nit ko xam nga foog nga mën a seet. da ngay jàng da ngay mën a seet di. te ñàkk mën seet gi fe fees del tey quatre-vingt-dix-neuf suñ ñëw ne dañu parce que li tax mooy la preuve euh, presque man maa ngi toog a yéen télévision yàggut. Mhm. ba ñetti fan yi li ma seetal ci nit man wax naa ne xam nga man man léegi dama damaa wàññi lu bëri ñimeetuma ko mënatuma ko sax. Mhm. sama jot mayatul ma ko ñaareel ba ñimeetuma ko. Mhm. mais li ma daan wax ndax boobu gune yaa loo gis rek dafay am gune yaa. dëgg la yenn saa yi nga wax wax yoo xam ne dalay lay wér ne yow lii bu dang di gune waaye boo doon mag sax doo ko wax. parce que di seetal nit ba muy jooy man dafa maa dal man su ma paree dama naan waa man man la kan sax di man lan dara lu ma wan lii xaw ko. du mbind mu may liir du soow bu may dégg doo xam lan la yàlla dafay programmer mbiram noonu moo tax ma ne li may wan mhm. ker bu arrêté ma ba mbindeef foorewu ko naa nelaw diggu guddi boo ma fëggee boo ma seetloo mën naa la laa dégg sax nga ni mën ngaa woo première fois ñu ñëw mais bu ñu ñëwee ci bu ñu gisul dara ñëppay toog doo gis kenn doo koy gisati beneen ba mooy dafa ma dal yàggul dara ñetti fan dafa nga wax nit ñi dañ koy naxee nit mhm. waaye dafa ma woo rek juste rek ma ne ko Abdoulaye rek mu ne ma yow noo xamee ne Abdoulaye laa tudd ma ne koy waxuma la Abdoulaye sa tur kaw ma Abdoulaye jaam ak yàlla ni ma lay waxee sëriñ bi wala booy saa yooyu du xam-xam nit ñi dañ koy fowee dafa ko xam te du xam-xam. nit ñoo ko jaar si turam taxu ñu ko faj soxlaam. te da ngaa rek. Ah, noo dama lay wan ne la xam am naa xam-xam mu xam ko. Ah. waaye dama lay wan ne la yenn saa yi da ngay kaf ni di wax ko dara su dee dóorkan nga ca ngay jaaree rey ko te loolu du xam-xam d'accord te yooyu daf may dal man dafa bëri lu may dal lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri mhm. soo paree su la neexee ma sa kanam damay composé di la ci wan ngay déglu ñi nga xam ne ñoom laa seqal loolu noonu après ñoom ci lañ lay jàppee sax parce que dañuy xam ne mënoon ngay trop trop d'accord mën nga tukkal seen d'accord benn question am na ñoo xam ne dangay ngay faral dégg ñu naan la mhm. euh, saraxu këyit mhm. suñ la koy seetal foog ñu defal la wird foog ñu teel la kurus ay fan est loolu mën naa ne man daal ñaan ñaan ak këyit laa wax man daay li may wax ak façon këyit bu nekk këyit bu nekk. waaw extrait sax na ci bokk. ok man képp koo xam ne dama lay ñaanal ci kayit hmm. dama lay teel turu yàlla. Hmm. parce que li tax mooy. këyitu doomu aadama dafa ñuróog moom daanaka zaahiram la fi nga koy xamee sa carte bu réer wala sa passeport rek nga mel ni ko dof te bu daa benn cër dañut ci yow xam moo tax mu for tur woo fa ne tur du caaxaan moo tax du ma seetal ni te xaw ma sa tur. est-ce que dégg nga secret bi may wax. la ilaha illallah. tur wala moo ci ne. yow tey sa yiree mën na réer du la déranger. da gis ko xalal lam yëpp rek mu ne li ma ci métti rek mooy sama sama sama passeport bi wala sama green card bi fa nekk wala sama nangam ji. lu tax lu tax mu gën a fort or ba fa ne tur wa tur du caaxaan. déedéet. yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax mu gën fi turam la. est-ce que dégg nga baax li ma la wax. bu baax te moom da taafantoo ci tur. kan la mu ne xasal mu ne xasunu amruna xasan mooy lu rafet mu ne suñ mbir mi rafet na kon loolu am na lu muy junj hmm. kon këyit man su ma la ciy ñaanal waaw da ngay joxe sarax yi nga war a joxe hmm. ma teel la kurus li ma la war a teel kurus yàlla def nga xam ca këyit ga ok masu may garantil nit ñaan te du ma ko mas a def te tey kurus yi amul àpp ankay man sama bës dafa am àpp ah. xam nga la moo tax dafa am àpp mooy hmm. man su ma lay ñaanal damay def calcul ci bis yi ma la war a ñaan ndax du yow rek yaa ma fi taaj waaye nag lan kañ laa du tàggoog yow mooy li ngay wut tànk xamoo ko du ba. boo dëggoo daal noppalu. jërëjëf man li ngay wut. Mm-hmm. tànk xamoo ko. Mm-hmm. ñuy déggante ma ak yow. Mm-hmm. du ma ba moo tax ñimiwu maay fayeeku kenn. dem ne mayu ma kenn waaye ñimiwu maay fayeeku kenn daal te ñimiwu maay fayeeku kenn fayeeku loo moom. dëgg na man jaayuma bay fayeeku déedéet. waaye nag li may def. dama ci laaj du ma ko mayee parce que doomu aadama yi caaxaan lañ gën a bëgg ci farata. ku bëgg ndimbal soo bëggee ni mel rek te yàlla tax hmm. ma dimbale te yàlla tax nga ne ci jàmm teraangal ma da may jox ci li nga am rek ma jox la ci li ma am d'accord ku bëgg caaxaan bëgg fo hmm. du ma wax ak yow d'accord am na càngat yuy tëj nit ak yuy ibbi nit waaw ci ban façon càngat dafay am yoo xamante boo déggee ñu ne càngat day tëj nit hmm. mooy dafa am nit koo xam ne moom sangu jigut ko mbiram du sangu waaw misaal bu ndaw rek yow yow furna buy boy ndax safara moo ko ndax ndoxa koy boyal boo ci sottee mu fay dafay fay am na koo xam ne mbiram du sangu am koo xam ne mbiram du takk am koo xam ne mbiram jarul sonn ci kurus jox ko sangar rek mu noppal dafay gis dara ku ci nekk la lay suuxat ma soo gis garab guñ samp bees ne nañ ko fur furnu mu màgg sotti ndox rek roose leen ko rek ngay dégg soo paree ñu ne léem leen ko. d'accord mooy protection. mais ki mu jig nag. lan ki càngat ji kooku xam ne daf ko. ki càngat jig nag moom. Hmm. dañ lay jox cangat nga sangoo di gis. waaye raxas yaram du ko def lu dul ci cangat mais su fekkee nit ki cànga bi jigu ko. Hmm. par exemple tey euh, nan ngay xamee ne jigu ko ba bu ko jëlee mu mu. da ngay mën a seet di sëriñ. saari naa la ñun xam nga consultation du caaxaan ci médecine. c'est vrai te mooy problème bi. foofu la problème bi nekk même garab bu ñu ko andee Sénégal sax dañ dañ koy diagnostiqué xool ko ndax garab gi mën nay faj wala déprimé na wala périmé wut. Uh-huh. am na garab yoo daan fi Nivaquine amatut exemple. joni joni am na garab yoo xam ne xeewi nañ am na ñaan yoo xam ne itam xeewi nañ am na sunguf yoo xam ne itam xeewi nañ am na wutin boo xam ne amatul parce que ijaaba moo yaatootu tam mbon gi dafa tasaaroo bu njëkk soo génnaan garab goo rocci mu faj la d'accord waaye léegi garab goo rocci mën nga cee feebare d'accord euh, mbokk yi est-ce que nga wax léegi fi may waxe uh-huh. léegi nag péeb yàlla bi dafay avancer day dox daa iman dafa am taxadum yow nag soo neeyee ci benn place bi doxoo bougé woo yor sa 33 10 bi ba léegi ñun dañuy connecté wu doo ko yëg dañuy seen ab sax dëgg gis na nit technologie di avancé noon la xam-xam bi di avancé kooku tëdd di nelaw du la ko may sama bàyyi laa ko rek sa bàyyi la mu yoroon périmé na périmé na yow nangoo too sol sa yiree bàyyi nangoo too war a otoom nangoo too tëdd néegam si xëdd la daan fanaan xamul lal moo andi dofi naan boo demee ki xam dëgg dafay tëdd saalum di tëdd ci ngatan ngatandi ñooñ dañoo bëgg ku torox hmm. bëgguñ ko xam de ku torox lañ bëgg fépp yam nga wax bi ñu doon tëdd ci ngatan ne ci néegu xëdd jamono jooju loolu moo fa aagoon jamono ji amul kenn ko am xam-xam nekk Saalum di tëdd ci néegu ñax amut kanaa ku trox man nga am xam-xam nag yàlla troxal la mm-hmm. parce que mooy joxo cër sa xam-xam bi wala gëmoo sa bopp alxuraan sax da lay teral mm-hmm. kuy taalibe duñ la may jabar jamono jii képp ko làkk arab ñu yàkkamti lay may jigéeni jamono parce que li tax mooy yëf yi dafa soppeeku te dawraaneetul aalam bi soo ko xamoon ni àdduna bi di doxee wërngal googu noonu soo ko xamoon ci nga xam ne jamono ji nii ku jàng alxuraan yow yaa ak ku ne ci njub yaa ak d' accord euh, mu nekk euh, Cheikh Baye li ne ci moom xajul sax ci émission bi mais am na ñett point yoo waxtaanee tëj émission bi euh, numéro yi mooy affiché ci bas d' écran bi comme ni mu koy waxee rek dimbali leen ko su fekkee jotoo ko rek nga bàyyi message saa yu pare dina ko lire alors li ñu beneen bi ñu moom mooy lan mooy nopp lan la ñuy tuddee nopp que ñu bëri dañ ko dellu jàppee ko ci lu yomb la soit mhm. nit ñëw na di nooblu koo xam ne leer na la yow ba xam-xam nga ni kii du ko takk waaw après léegi kan moo ci am bàkkaar bi bàkkaar bi parce que leer na la yow kii te ba tey itam day dellu soit si li ma wax rek gis nga amut ñaan koy def te mënoo seet te doo ci jële bàkkaar benn nga wax loo xamul wala nga def loo xamut. nit ki su ñëwee ne la noobal ma. Mm-hmm. même bu ne la sama jëkkër la war ngaa am xam-xamu xam ndax jëkkëram la am faram la soo xamee ne faram la nga noobal ko ci ñuy njaalo yow bu ñu amee bàkkaar yow da ci am bàkkaar di. Mm-hmm. parce que yaa ko organisé. Mm-hmm. yaa ubbi bistro bi. waaw yow yaa ubbi bistro bi ñuy caaxaan. Uh-huh. yaa ubbi ba naanukaay sàngara bi euh, safara nga jëm. Mm-hmm. da war a xam kan ngay noobal. noob suñ ko waxee xam nga mooy lan mooy xëcc lu mënta ne ñi ba pare jaratuñ noob man boo ñëwee mu leeram yaa sa jëkkër amul benn problème loo ci noob parce que xëcc loo jotut la. Mm-hmm. waaye gis nga sëriñ noob. Mm-hmm. ak façon bu mënta doon nit lum mu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër bopp. gis nga nit lu mu naqari naqari deret sa jëkkër bëgg lay fontoo di caaxaani di dem di njaalu ji di ba. wala mu takk la ba pare xeme moom la nobatut la wala mu nekk di génn ak yow nga koy jox sa xalal mu dem ba takk jog mu duggal fi romb dem mm-hmm. yaa wala mu nekk koo xamante ni dafa jël euh, di génn góor di ko lekk di ko lekk dem ba takk jog mu dem seeti beneen góor ngir àdduna kum ci mënta doon ci ñii nii su ma tasee ak yow danaa fa dundigam parce que xor baaxut d'accord bëgg bëgg takk nit te munoo cee jot dafa metti bëgg nit te munoo cee jot dafa metti li garaaw mooy daf lay d'accordal mbëggeel gi ngeen ne di dund ngay am di ko jox di ko yërëm ngeen di waxtaan seen projet de mariage dem ba dara desul lu dul takk mu bugg la fee wan gannaaw man nag kooku moom même bu fekkee takku googu soo ñëwee ci man uh-huh. yaa ngi dégg uh-huh. ma xool gis ne looloo wér danaa defal loo xam ne soo ko takk dootu xam jëkkër parce que saay-saay dañ koy yar nag dëgg la alquran la ko wax de foog ñu dagg mu ñi gëmut dégg nga baax li ma la wax uh-huh. waaw loolu alquran ju leer nañ la kuy sàggan wala ngay caaxaan dañuy dagg sa kon su ko defee loolu moom kooku mënal naa ko loolu beneen bi mooy képp koo xam ne am nga boroom kër beneen nopp gu gën a garaaw mu ngi ni xam nga jigéen yu bari li tax ñu bañ seen borom kër yi néew kàttan la. Mm-hmm. loolu dama ko ciy boros rek. li gaa yi wax mu rëy gudd euh, am doole. Mm. dafi fees del yow moo di ko waxee mais day neexal sëy ñu ngay garab goo xamante ni suñ la ko joxee sëriñ jarul amut du benn produit comme produit gars yi utiliser nii di dëbb ay per di ko jaxase ay suuf di ko jox nit ñi. Oh. mu nekk ay aphrodisiaque xaw ma genre yooyu. Mm. naturel la lekk la ñam la bu ànd ak alquran buñ kaasee si ayatul quwa yi ak nañ koy booleet ci xaatim dëgër këkk rek daay man day gën di rëy dafay gën di gudd dafay gën di du dafay gën di dëgër d'accord mais dañuy faral di dégg Cheikh Baye du mës wax lu jëm ci ay noob bu ñuy lekk parce que nee dafa am man sama noob yu bëri du ma ko def ci wàllu lekk parce que li tax mooy mhm. nit ñi dañoo sàggan mhm. da ngay jox nit noob guñ war a lekk mu jël noob ga nam ko defaree du set wala du baax mu jox ko boroom këram mu lor ko beneen ba dafa yéex. Mm-hmm. parce que boo bëggee noob guñ lekk jëkkër ne Amérique ki nekk euh, Saalum nga ne danga ko bëggoon noobal kañ la koy lekk dégg wax bi. Mm-hmm. te bépp noob gu nit di lekk yéen ñaar koy bokk lekk. laa ilaaha illallaah yow kenn lekkal topp ma yaa ngi dégg dafa yéex. est-ce que comprendre baax fi ma lay waxee. dégg naa bu baax noob dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. tur yàllaa ci gën a gaaw ak alxuraanul karim. doo ci morom. parce que nit ki dalay bëgg naturellement. mais est-ce xam nga li ngay wax nii. Euh, xam nga mbëggal dafa am ñaar. Mm-hmm. ki la topp dof bu la topp amul njëriñ ci yow. nit nga koy xew ba mu dof koo xamul njëriñ sa jëkkër dof loo ko mu nga xamante ni xel mi du ne ci lu dul yow du liggéey na la bëgg-bëgg bu naturel mooy mbëgg te yàlla tax. ubban lillah kooku na daf lay permettre su dee nga mën a am beneen jëkkër su la fasee nga am beneen jëkkër ndax mën na ne moom itamit soo soo tasee mu am beneen jabar soo dee mu am beneen jabar d'accord. ok nga wax bi waaye am na façon noob yoo xam ne soo ko defee jigéen boo dee dootul sëy te yoral nga ko bàkkaar. d' accord mais est ce que noob euh, li ngay wax nii. yombul ci échec dafa bëri mais malgré que yow allah euh, mun nañ wax ni. Euh, bokk na ci li sax télévision yi di faral di invité bëgg a mhm. jàppale ci samp mhm. wala muy yóotu dara wala wàllu wala mu bëgg dara bëgg naa takk sama tubaab bi mënu ma cee jot Cheikh Baye dimbali ko fexe ba mu jot ci est ce que na. Ah, en tout cas de. Hmm. yombut ndax liggéeyam yombul. waaye daf si am beneen boo xam ne dañ koy jaawaleeg nopp. muy mooy ñu ne ci entreprise. Hmm. wala nga yore dëkk. Hmm. wala nga bëgg a jiite dëkk. Hmm. wala nga bëgg moom nit ñi. patron bi jox wala nga bëgg patron bi yor société am. wala patron bi na juboo ak man. façon yooyu bokkul ak noob gi ñuy def si diggante jëkkër ak jabar ñu bëri foofu la ñuy amee jafe-jafe. moo tax yenn jigéen ñi dañuy dem noob seen patron mu nekk noob ak diggante jëkkër ak jabar ñu dem patron bi noob la sa jëkkër fase la cest à liggéey bi gis nga euh, Mohamed c'est-à-dire liggéey bi dafa bëri loo xam ne xam-xam moo la ko jox mooy foog nga am xam-xam foog nga yeewu ci àdduna bañ nekk kaw-kaw mooy dangay ngay xam li ngay def bu ci ne nga teg ko fa nga koy teg est-ce que yëg nga ne tey exemple tey ma koy wax te xam naa ne intéressé na nit yi jamono ji lool. Mhm. tey supposons comme Sénégal gii nii nii nii mhm. nga toog ne damaa bëgg a jël Sénégal damaa bëgg ñëpp bëgg ma. Mhm. te kenn du la saaga par la force ñu même bu ñuy mer sax dañ la topp. foo dem nit ñi bàyyi la xel. am na loo xamante ni soo demee région bu ne nga toog fa liggéey ko. Hmm. kenn mënta fexe ba doo falu. ndax ñëpp laay bëgg région bu nekk soo ko defee ci dëkk kenn mënta fexe ba loo wax duñ wax waaw. kenn du toog ne région bu nekk bu ma la ko defee la bu mu la. région nekk quatorze régions yi fu nekk mu toog tey Sénégal boo amoon ku ko bëgg a jiite yow Mouhamed mi nga jox ne damaa bëgg a jiite Sénégal. Mm-hmm. li ma lay laaj nga jox ma ko man ma wër quatorze régions yi. mbindeef mënta tey doon na nekk président waaye duma la ko defal parce que xam naa xattanoo réew mi kooku xattan lañ koy defal saa dama la bëgg a wax ne su soxlaa dara da war a xam ndax kii li nga koy defal mën na ko wala déet. d'accord baax na wala déet jig na askan wi wala déet bëgg na diini ji wala déet. d'accord ci gis-gisu Cheikh Baye ci ci loolu la duggee ci question politique maanaam tey président Ousmane Sonko mi ngi mhm. Touba. Mhm. wax dëgg yàlla temps est passé defoon nga ci ay révélation mhm. yi. nga ñëwaale wax naa ko keroog seen télé may leen su may wax accident dina am. waxuma ko pour ñu ñëw di ma dëggalaat naan dina am ndax man li ma xam. soxla ma ku ma koy dëggalal. man gëm naa li ma gëm c'est point soxla ma kenn ku ko gëm. yaa ngi imaa shakiran imaa kafuran yow yaa xam. ndax waxuma pour yow. beneen bi mooy damaa gëm suma bopp ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko yónnee sax bu gëmutoon boppam lislaam du dem ndax amana rasul bi maa unzila ilay man su ma ne accident dana am gëmal yaa xam gëmoo yaa xam man gëm naa ne dana am danaa ñaan mucc si ak sama njaboot. dama koy wax parce que li tax ma koy wax mooy ñi mën a ñaan te xam ñaan ci ba du am. Mhm. ñi nga xam ne mënuñ loolu koy dugg si oto nga préparé ñaan yàlla ba yàlla musal la ci. ba mhm. kenn muccul jamono jii ñu toll. la ilaha ndax li ne ci dëkk bi. Mhm. moo tax loolo tax may def yenn révélation yi. sant yàlla nag loo ci def ñu ne amoon na amoon na du ndam ci man de parce que man li tax du ndam ci man mooy yow na. loolu gën a tuuti ci man li may xam man ay dara dana xew suba waaye du ndam parce que nga koy waxtaanee xay bu du lu ñuy waxtaanee fu la neex. déedéet dañ ko def sax léegi kon moo tax ñu ngi jaale ñooñu beneen bi mooy Touba ñu ngi nuyu xalifa xalifa euh, kii sëñ Muntaxa mhm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral macha allah gis nañ université bi nga xamante fan ñu ngi koy ubbi mhm. ñu ngi ci am bu baax a baax mhm. parce que loolu mooy Sénégal dégg naa Ousmane Sonko dem na fa tey maa ngi fay waaj a ay coow waaye lenn daal maa ngi koy wax sëriñ surtout maa ngi koy wax jeunes képp koo xam ne yaa ngi di jeune ci réew mi ren ci ren mii. Mhm. utal kaaraange ak gàllaaj. la ilaha illallah. deret ji bëri na jeunes yi génn àdduna bëriñ te accident yi sellul jeunes yee ci ëpp. wallaahi rayante bi bëri na. Oh. te deret mën nañ leen di may mën na leen di xañ liñ bëgg ñoom. ay innocent rek. kon loolu du jàmm. Mhm. beneen bi mooy Ousmane Sonko dama koy tudd ma mhm. projet bi nga xam ne moom la engagé. man Cheikh Baye Thiam Yacine nee naa projet bu ma gëm la man. projet bu ma gëm la man new ma fi di ko ñaanal bokkuma ci ñu naan ay damay ñaanal ah, Ousmane parce que li ngay wax ni yombul ci yow taxul may jóg yombul ci yow li ngay yaa ngi dégg dëgg la waaye xam nga lan laa gëmut mhm. violence du ko ko may est-ce que dégg nga baax li ma la wax mhm. alquran lu mu baax baax baax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee di ko jox waa Màkka mhm. yaa ngi dégg mbéjut leen di leen ko jox au contraire dañ ko doon mbéj moom di ko saaga ndey muy muñ di ree di leen ko jox ba mu demee ñu dàqee ko ci kër mbokkam yi jam ko xeer xotti yaramam. yaa ngi dégg. Mm. Euh, xotti yaramam dagg li nga xamante mooy ay tànk ba deretam di tuuru ba mu génnee yàlla subhaanahu taala ne ko waaye léegi est-ce que duñ boolante ñaari doj yi ñu taf taf li nga xam ne moom mooy dëkk bi ma diggante doy Makka ak Taayif mm. mu ne déedéet yàlla jéggal leen dañoo xamut. kon li ma bëgg a wax soo bëggee doon njiit. Mm. da ngay nangoo muñ nag. waaye jamono bi dafa yàqu parce que Sénégal foog nañ ne pour nga nekk leader politique foog nga ñime xeex. foog nga ñemee revendication foog nga ñemee saaga foog nga ñemee fitna non. li nga gis Macky daal neexu la. déedéet li nga xam ne moo jot a. mosul neex di cest à man kam nga man Mohamed. man ñu wàll ci Cheikh Mahi. am na daal damaa mm-hmm. damaa libre Cheikh Mahi moom wax naa ko keroog seen télé bi nee naa képp koo xam ne dégg naa nga saaga Cheikh Mahi bul yàkkamti. Mm-hmm. koo dégg mu koy saaga bul yàkkamti. toroxtaan mm-hmm. dem mu sama loxo bi. man loolu man maa ko waxoon. wax lu ñaaw te loolu message la bi sëñ bi. wax bi message. te serment yi la bu demee bay wax lool mhm. du da pour yëgal ni ñi ne ñu ngi koy saaga de. saaga déranger ko de. martaba la leen di envoyé te yëguñ ko. misil dem na. koo mënta doon nag a ku la mënta jur. nga wax luñ waa léegi te serment yi kanaa serment yi du citoyen comme ni ñi. Mhm. amul droit ñoom projet bi Ousmane Sonko engagé nii serment yi moo ko njëkk a engagé ñun ba ñuy ne école la naan ñu. des na tuuti conférencier yi dootul bàyyi ko ci biir dëkk bi sax di ñëw def conférence yéen a koy defal seen bopp kon gëm sa bopp mu ngi foofu. Mhm. ba muy bañ France moom nga xamante ni du programme am mooy tubaab bi yi nga xam ne moo fi am nit gëmu ko dem ba ne ñun suñ maam ah ñi mën tëll yaa ngi dégg deel gu tooy nangam ba muy wax ne ñun yooyu lañ yooyu mooy suñ turaas mooy suñu dono. Mhm. moo ñu gënal ABC bi ba muy xeeb li nga xam ne mooy format bi ñuy jàngee loolu booba Ousmane Sonko ju doogut. Mhm. waa kon Ousmane Sonko serment yi mën na bañ projet bi mu engagé. boo tegee ci yoon. dëgg la waaye nag violence mayewul dara Sénégal. dëgg la Sénégal ba mu di Sénégal ba léegi kenn mës ta gis ku xeex senegal réussir ko gagné am ca ndam. dëgg la moom moo gën Ousmane Sonko. ba ko noonu jëlee di ko yóbbu dafa nangoo dem duggi kaso nangoo dem fi nga xam ne mooy maayombe dajeeg la mu fa dajee dafa xarbaa yoo xam ne delsiwaat ne jéggal naa leen def bisum delsim bi moom bisu mi fitna bi muy dem bi moom lay feete muy màggal gi ku nekk xam na Sénégal Mbàkke gañ ne dañ fay màggal yàpp rek lañ fay lekk bisu mbégteel te sëñ Tuubaa ba muy dem dafa métti daf ko bisu sant yàlla kon kooku jégalul ay noonam lan la wax jégal naa samay noon ñëpp bawuma kenn d'accord alaaji Malick si tubaab bi kañ la ne kenn du fi waxee salaatu ala nabi wallaahi mu négocier ak ñoom di waxtaan ak ñoom ñëw ba ci pegg pale bi samp fa zaawiyaam fu ne nga fay dégg xàq bil xàq mhm. waaw loolu kooku pacifiquement la la la ko def. pacifiquement projet bi daal gëm nga ko. projet bi gëm naa ko te tey suñ doon voté moom laay voté mais du ma génn du ma sànni xeer du ma revendiquer saaga du xas kilifa du ma xas. ku ku mais bu fekkee dañoo mais bu fekkee dañoo jël yoonu pour pour xañ ko candidature am. que nekkul pour. yow nit mën na xañ nit bu rajo faafalu foofu mooy problème bi. Hmm. gis nga yàlla bu la waree fal. yàlla bu rëddee nga raaf mu balaa muy rëddaat daf lay effacé yow yàlla lim nar kenn mënul mbindeef mënul ci àdduna bi buñ booloo ne Ousmane dafay jël réew mii te yàlla bëggul mu jël ko 2024 du ko jël. ndaw ñi jox nañ ko bopp de. est-ce que da nga wax mi di moomuñu réew mi di réew ndaw yi nee la àdduna bi yëpp buñ booloo woon ne Mohamed da ngay doon président te yàlla préparé ko doon. dëgg la ñëpp buñ la bañoon ne da ngay doon président yàlla fas yéene jox ko da nga koy doon. d'accord ñun ñii ñu ngi ñu 2012 fi lañu fekk kenn mas a xalaat Macky Sall dana jël réew mi. Hmm. kan moo mas a def ci boppam bi ne Idrissa du mas jiite Sénégal auparavant 2007. dëgg la kan moo doon xalaat ne Idrissa doon Wade. ñëpp a gëmoon loolu. dëgg la 2012 ñëpp a gëmoon ne Moustapha Niasse dafay jël. bu mag moom 2012 dëgg la. mais ñun fi la fekk dañ daan man Isitel maa ko jiite woon bokkoon naa ci ñu doon jëlee sama commune. man damaa def politique bu dee politique nii rek amul kenn jeune buy taxawaalu nii di wax gën ma koy xam. kon violence daal joxewu violence joxewu dara ci kaw suuf joxewu diina jox te yàlla da koo bañ. al finnatu naima laala laahu man ay. est-ce que moom dafa woote violent parce que su dee damay dem ziar. woote wu ko de waaw doo aw fii. yaa ngi dégg favoriser moom yàgg bàyyi ko tey. doo eh, xoolal doo fi aw. Hmm. ma xaw feneen. mën naa atteindre sama objectif. point loolu mooy nit nit nit ci boppam mooy kii sama noonu la dafa maa bëgg a xañ li ma war a am xeex la bëgg borom caq ndax war nay xeex ak ki amul caq. d'accord mais projet bi ñuy préparé. man sama candidature kenn aayul ko defuma neew ma di wuti troisième mandat wuti ma dara c'est la première fois wala deuxième fois mu a nekk candidat. Hmm. dara xañagun hmm. ki nga xam ne jeexal na. d'accord mais projet bi nga xam ne dernière question ñu ngi koy ñëw ci hmm. bi nga xam ne ñu ngi wax bu ko euh, tey teg nañ jëf affaire Adji di tudd ci Mame Mbaye Niang ñu ngi poussaat délai bi le 16 bi la woon mais poussaat nañ ko ba mois de mars am na lu muy am na luy bëgg a xew de lan la ci wëndu mën nañu tuddaat leneen sax parce que xam na la mel ku sa wujj di sëlëm doo set. onze président lu mu mën pour faagaagal sa waaye man na koy def di parce que wujjam la parce que mën a xalaat ne moo koy xañ jàmmam. Mhm. moom it lu mu mën pour faagaagal Macky mu koy def man Sonko laa bëgg exemple tey. Mhm. yaa ngi dégg de xas Macky Sall waaw doo may ki bëgg Macky Sall mu xas Sonko réew mi ne ci jàmm ñu ne ci démocrate. ok te gérer plateau wax naa ko yàggul ma ne Ousmane Sonko su bëggee jël Sénégal. Mhm. dana bàyyi méthode bi mu jël te jël méthode bi nga xam ne wax ndaw yi projet bi mu amee. dëgg la. non du xeex. li mu amee dafa am solo nit ñi soxla nañ ko mais Mouhamed nee naa la suukar sax su ma la ko may su ma la mbéjee dootoo jël. d' accord aywa uh-huh. kon su ko defee. Mm-hmm. loolu mooy affaire bi. dañ teg yi fii ci jàmm senegal jàmm fi am beneen bi nag. Mm-hmm. fa laay tëjee nga bàyyi waxtaan boobu mooy. Mm-hmm. Sénégal ku ko bëgg taal danga tàkk ku ko bëgg yàq da nga yàqu képp koo xam ne ku fi bëgg a andi finna la da nga am finna kilifa diine yi ñu am. Mm. képp koo xam ne kuy xotte seen xorma la bul ti ko mënta doon ci kaw suuf da nga torox. d' accord Macky Sall benn baat bokk na ci lu ko sonal lool ne citoyen simple lañ duñ simple Sénégal moo mel noonu àdduna bi àdduna bi daj li Sénégal am mu amul benn dëkk bu ko am te wax naa fii si sama saal bii. Mm-hmm. ne Sénégal suufam si suuf la ci suufi àjjana yi. ku ko mën dindi dindil. ndeysaan man maa koo wax. d' parce que li fi wadd waddut fenn. d' accord ci kaw suuf. aywa jërëjëf mu nekkoon Cheikh Baye euh, bi ñaari jaaro yi et puis lan lay jariñ parce que tey comme li ngay wax nii jege nit ba mu yàgg jaaro nga ne ay ca ñëw waaw moo tax jaaro bi waxatuma ci. waaye man nag waxuma jaaro bu may ndëbbu jaaro takk nii li ma ciy def la. jaaro bi du question per rek la war a am bu la neexee nga xëw ko du xam leneen lu dul moom. Mhm. su la neexee sax boo ko def si xaalis. Mhm. utal loo ko takkee mhm. waaye damay wax man Cheikh Baye Thiam Yacine jaaru bii nga xam ne moom laay defar nga xam ne nit ñi ñu ngi ma koy laaj jamono jii mhm. première sos mooy yombut mhm. ñaareel bi mooy jaaru bi amut lum mënta fegal nit ci musiba te amut lum mënta andil nit ci bànneex ndax man dama ko jarab bu mooy dama ko essayé ah yemul rek ci maanaam sa alal mu toog déedéet luy sa alal mu toog loolu def loolu loolu sax loolu baaxut di loolu nay la di alal wartu toog dafa war di dem di ñëw nii la war di def ah, gëmoo ñuy wax naan ay soo ko takkee sa alal day toog lu ah, sa alal day soo ko takkee dangay nay loolu kuñ ko wax ngay jullit waroo koy nangu sax di du loolu alal xam nga mooy lan hmm. mooy am soxla mën koy faj jàm bi am soxla nga mën ko koy fajal te jaaro bi képp ku ko takk say moroom yaa ciy raw wala boo ci raw kenn doo ci ñee kenn képp ku ko takk dañ la xam àdduna yëpp dañ la dégg da nga siiw ku ñu la takk yàlla da la suturaal ba boo naroon a tarfat sax ci kàddu sax yàlla suturaal la di nga génn ci loo wax itam nit ñi bàyyi ci xel képp ku ko takk foo jaar karloog nit ñi ñu bëgg la képp ku ko takk yàlla dana la def njiit ñaata nga koy defar ci at mi yaa ngi dégg lan jaaru bii nii é mhm. eh, mën naay toog xat duma ko liggéey ndax am na jamono dama ko baxoon complètement parce que li tax ah, waaw parce que ci yow la njëkk déggee nga ni benn yoon nga liggéey ci at mi am ñeneen ñu ci toppaat liggéey ci at mi xam nga xam nga li ma lay wax xam nga façon façon jaaru <laughs> xam nga moo doon loo xam ne Mohamed man damaa jaaxle gis nga tey boo su ma génnoon damay doxee bopp. Hmm. bu subaa nga gis ku ne man ñaari bopp laay doxee. loolu mooy senegal yaa ngi dégg. d'accord waaye man sama xam-xam yi ma am dëgg dëgg dëgg. nit déggagut ko ci internet. non baatin la duma ko wax. ki may woo téléphone rek. te normal mooy am sens di ko jëfandikoo. nañ fi toog ba suba ba gannaaw suba nit mën na la fi ñàkk fekk. d' accord waaye xam nga ne. Mhm. maa ngi ci dara de. d' accord euh, aujourd'hui c'est vendredi bëgguñu la tee wax dëgg yàlla. te euh, am nañ yàlla jéggal sax xadara bi sax dañ la koo xañ. Mhm. waaye heure bi daan na la fekk ci xadaratul mhm. juma. lan ngay tàggoo ñi bëgg nag xam ci jaaro bi la ca ne. woo leen ko parce que bëggu cee yaatal ndax nee na bëggutul sax di ci wax. képp daal ku ko jot. da nga sant yàlla ku ko jotut. yaa ngi dégg muñal parce que du ñëpp ko mën a jot ndax du jaarub gune du jaarub ku ñàkk li tax mooy dangay jël li nga xam yépp def ko ci benn mbir pour mu jox la léppam yàlla da koy jox sa lépp mu jox la tuutim beneen bi mooy li nga wax ñu ngi ci yowmul jumaa ñu ngi leen di ziar baax mm. waaye gis nga li ñuy wax ni mu liqaa'ul ahiba mm. xayrun min al azkar wa ma fiha mm. ndax dajeeg soppe yi gindi leen mm-hmm. ñooñ mun moo ñu gënal toog di zikar te loolu Cheikh Tidiane moom moo ko wax kon ñu ngi ñaanal yàlla képp koo xam ne ku ne ci réew mi la ku ñuy seetaan ci bi réew ci biti réew di leen ñaanal yàlla te di leen gërëm bu baax a baax di sant ñëpp di daal Sénégal yal na fi yàlla def jàmm mm. accident yi yal nañu ci yàlla muusal accident yi yal nañu ci yàlla muusal accident yi yal nañu ci yàlla muusal te ndaw nañ deloo si seen xel mm-hmm. te xam ne liñ bëgg ci jàmm lañ ko mën a amee mm-hmm. wa ma zalika ala llahi bi aziz wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi mu nekkoon Cheikh Baye fii ci euh, Dakar euh, supprime waaye nag euh, am na yeneen gox yoo xam ni dafay faral di nekk muy Saalum bi ngeen xam ne da koy faral di tugg li muy génn it bari na tukki yi bari na waaye fu waaye mën a nekk WhatsApp bi day dox incha allahu taala fu mu mën a nekk boo ko woowee incha allah sa mbir mën na ko lijjante fa mu toog jërë ngeen jëf merci.